di wone sen tiofel ak sen engagement ci gannaaw Isa. su ma isa nak bolé na ci koddu ak jigéenam yëpp mënuma faté tamit seynebu seynebu jonne mi nga xamni ni isa ak koddu ñi ngi laxasaayu depuis 2009 di liggéey ci parti bi Nek ay ñayu xaré ñu leen encourager di leen wax ni ñëpp yëg nañ seen liggéey te yaakaar naa ni ku jëf jël di nuyu kon sama sœur bi fi nekk Ndeye Tické docteur Pape Amadou Ndiaye sama xarit sama rakk Lamine Ngom Fatuma Mohamed Diallo ak sama jigéen ñi fi nekk muy sama yaay Umu Ndiac Mama Diaw Seynabou bu tudd tudna ko sank ak ki nga xamni ci investi la bok muy madame maymuna sen job nee candidat de la jeunesse duma faté muk di témoigner sama cofeel ci sama yaay sama xarit muy mère Mati ndjay Marème kasse ma ngi lay nuyu sama yaay isa nee na nuyu yaayam donc di wax rek ni ginnaaw tey yàlla dafa dogal ñu ñëw fekk leen fii nuyu ci seeni doom muy Koddu ak Issa dafa jaadu tamit ginnaaw Issa fu ma jógee mu jóg fu ma wootee mu ñëw fuñ ma gisee gis ma ci gannaawam dafay jaadu que ma seede en tout cas sama ànd ak moom muy sama rakk ju ma déggal ju dégluwul waxu kenn ju doylu rakk bu jub bu mat rakk may ñaan yàlla ngeen ñaanal ñu yàlla musal ñu ci seytaane ba lépp loo xam ni dañ koo mëbët ci parti bi ak suñu avenir ak avenir moom mii yàlla dogal ko parce que ku gore la mbir mi metti na lool mu ngi fi depuis 2009 waaye président fàttewul kenn dafa tolloog nag lu jot yomb kon ngeen ñaanal ko mu gën a yokk taxawaayam taxawaay bi kontaan nañ ci lool te bu soobee yàlla dama ko koy bis bu nekk sama bureau nit ku liggéey yàlla moo lay fayal boppam donc Issa ci sa kanami mbokk ci sa kanamu koñ maa ngi seede ni kontaan nañ lool ci yow ci sa kóllëre ci sa engagement su ma nee Issa nag. bolé na ci jigéenam muy code Diop may remercier au passage jëkkëram gaucher boy euh code bo paré boy bo nga jël film bi envoyé koko parce que jigéen tamit bu amé borom kër takul di liggéey di ànd ak góor fu ko wo mu ñew c'est parce que tout simplement ci jukkoom bu rafet la mais ci confiance ak engagement jëkkëram la ñi ko ci gërëm di ko sant seen bu yow li ma la dencal damay bàyyi ba nga xewle ma ñëw fu incha allah. docteur nee ah sama sëriñ nag tey moom dóor na ma mboot parce que docteur Ndiaye nee na ci turam laay waxaaleel kon nag kàddu yi ma yëkkati ginnaaw ab taalibe laa bu ñu yónni rek ngeen jàpp ni lépp lu ci ñaaw rek man la lépp lu ci rafet docteur la parce que moo may ñaanal su ma takkoo di ñëw ci booloo docteur moo may defal ay saar takkal ma benn ndomba ba lépp lu ñu wut ci cérémonie bi ñu am ko donc sëñ bi bu ma fàtte ci ñaan rek. Lamine. waaw di gàttal rek parce que guddi na. di wax ni mobilisation bi ni mu rafetee nii. yàlla dimbale nañu. ba sen centre bi nga xamni ni Abdel Kader Ndiaye ci centre yi ñi tiitaroo ci gox bi ci la bok parce que luma metti metti metti ak lu kat kat, kat kat kat dinañ góorgóorlu ba sak bu ngon joté mani luma lu kat kat ak luma met ak luma metti metti metti yalla sutural nañu ba say ñu voté ba ci ngon nga ci centre yi ñi dégg wiwu ci la bok mais ma leen di gën a ñaax ngeen gën a dëgëral taxawaay bi ndaxte am na lu fi jaar ci suñu gannaaw mooy inscription ci liste électorale yi te mën na chambouler situation yi nga xam ni moo amoon ci centre de vote yi donc bu ñu naagu am na benn sëriñ bu ñu ko waxoon nañu gën a dëgëral taxawaay bi buñ doon gagné 60 pour cent ñu gagné 90 pour cent parce que dafa am solo lool parce que dëkk bii ñun ñoo ko mën a defar ñun ñoo fi dëkk. kenn ñu ko defaral defar cib dëkk nag dafa commencé defar cib koñ ngeen jàppale ñu jàppale seen bopp jàppale Issa mii ndax mbébét yi nga xam ne président Macky Sall am na ko ci askan wi man ko jaarale ci ñun wala ci ñeneen ba su lépp loo xam ne nas nañ ko en tout cas ci koñ bi ak am nañ ko ci yéene yàlla yeggale ko fi may yeggalee nag mooy fan yëpp am na ñuy wër ci koñ yi di ruuma naat di dem ci biir association yi groupe yi groupement féminin yi naan leen wateel leen Massamba bu leen wateel Macky Sall ñun amuñu problème mu liste ñun programme nañuy liggéeyal parce que Sénégal kese moo ñu ñor suñu jëmm ju of ji Thiès moo ñu ko gënal suñu koñ yi ñoo ñu ko gënal bu fekkente nit mën nañoo nekk sax jardinier Macky Sall te mu ñuy jàppale suñu gox bi. ñun paré nañ ci nek ko parce que Thiès kasse mo ñu ñor donc duñu jël jerejef jerejef jërëjëf ñu yeggale ñu yeggale sama jànq ji tey seen yaram dafa tàng de melal ma tuuti ma rek donc pour vous dire dama ñun Thiès mo ñu gënal suñu jëm ji président Macky Sall ba and ak mom di liggéey Sénégal kese mo ñu taxa jog donc su fekkenté ni amna ñu fi nekkon président téral leen parce yi gëna kawé kawe mu jox leen ko lu nekk ñu nekk ci dëkk bi di wër so Thiès kéro kër fu ne ñu dem di tag tagg te wéddi lañ nekkon nekkatuñ ko yalla yalla rek moy joxe nguur yalla moy joxe nguur moy nangu nguuram. donc su fekkente ni ñooñu tey ji ñi sama sëriñ docteur Ndiaye di wax sëñ ab Lahad Mbacké nee woon na nit bu fekkente ni waxi teyam dafa wuute ak jëfi démbam kooku bu ko jàpp parce que workat la donc bu leen kenn nasaxal képp ku fi taxaw naan leen Macky Sall lii wala laa jëmmam ji moo ko tax a jóg mais ñun cees moo ñu tax a jóg Sénégal moo ñu tax a jóg ngeen xamee ñu baax ñi nga xam ne dañuy naxee am na ñuy gàmmu am na ñuy raas dem raaskatu deux mi nag na leen moytu ba bu le 30 jotee ñu ànd ñun ñëpp joxaat président Macky Sall majorité absolue maa ngi leen gërëm leen sant. ah ndeysaan jërëjëf. di jéggalu ci kàddu yi ñu fi yëkkati ci sama turu xarit sama kilifa ma koy wooyee souvent sama sëriñ muy docteur Pape Amadou Ndiaye. moo xam ni daanaka bu toogee muy man di sama jigéen bii toog daanaka war nañu mën a bañ a jël parole dafa tombek nag ginnaaw Sénégal moom genre nañu wax fu góor ñu waxee ñu jox suñu jigéen bii mu laal ci tuuti waaye ma leen di seedeel ni kàddu gi benn la yéene gi benn la xol yi benn la fu ñu dajee ku ci nekk war nga mën a waxal sa bopp kon nag may jéggalu ci kàddu yi di wax nii lépp lu ci rafet rek ci mbaaxam la ak ci yéeneem lépp loo xam ni jubu ciit maa ngi ciy jégalu bu baax di wax ni xaj na xër ak yéene kese moo ko waral soxna Marème ñi ngi lay gërëm di la nuyu di nuyu say mbokk di la féliciter ci mobilisation exceptionnelle bi dégg naa léegi Diop ni meeting la dina am meeting sax yoo xam ni macha allah mbooloo yi fi teew mi fi teew ni, du teew ci meeting Bob. mais li waa ji ni public dafa am public yu ñuy compter am public yu ñuy peese defe naa ni ku xool mbooloo mi fi teew seede ni mbooloo de qualité la. Nous la ciy et di wax ni loolu bettuñu c'est pas pour rien que nous ne nañ fi mujjee parce que ni boo wootee nit ñu baax fekk si la nit de qualité fekk parce que ku ci nekk la nga leble rek nañ lay fay ma nous ni seedeel ni soxna si suñu la de parti la mais yemuñu rek ci relation politique dafay wax lu baax di ñu digal lu baax lu yàqu ñu ñëw defare ko ci këram gii docteur Ndiaye mi may wax xam na ko bu baax mën na ko seede Ndeye Tické mii mën na ko seede responsable yi mën nañ ko seede jigéenu parti bi ñi nga xam ne ñu ngi Thiès Ouest mën nañ ko seede parce que matul ñaari ay bés guddee nañ këram gi lool di fi lijjanti ay lënt-lënt. manam ay incompréhension yu amone te ku nek ku xam politique xamni politique ak incompréhension ño kon di wax lol suñu biñu fi ñëwé tay and ñun ñëpp fekk si la ci sa débat bi di ñaan yalla ni mobilisation le 30 buñu voté mu jërëjëf jërëjëf jërëjëf xale yi di wax rek ni gëm naa ni noonu lay demee parce que Marème liggéey na ko fii te lebal na ko nit ñi nit nag bu lay lebal defe naa ni bu fay jotee wala bu reconnaissance jotee ku nekk da war a jóg te mañe ko sa affection te mañe ko sa engagement te ku ne yaakaar nga ni xam nga ni le 30 bi enjeu yi dafa important parce que dafa am ñu taxaw bëgg a bloquer fonctionnement réew mi li koy faj nag mooy jox le président de la république une majorité absolue ñëpp a xam ni Macky Sall ku am yéene la ci Sénégal kuy wax rek ci yàlla tax ñëpp a xam gis-gisam maa ngi romb keroog benn tableau gis benn opposant bu def ci affiche am. Sénégal day dem Sénégal day dem mais ñom dañoo yéxa xamni Sénégal day dem dañoo bàyyi ba xalé bu ndaw conceptualiser def ben programme pour xamni monde bi ñepp d'accord ñepp a biñuy bout financement PSE taxawul muy club de Paris muy ci bailleurs institution de Bretton Woods fait pour dem kuñ programme bi nga ni wax leen ma ñaata lay ñaata lay ñaata lay laaj ñu def ci seen xaalis ñu naan déetawaay ñu ne pétrole génn ci dëkk bi ñu naan déetawaay ñu ne gaz génn ci dëkk bi kon kay kii aayul gaaf moo tax fi mu ne ku ci ne ñi nekkoon retraite ak ñu ni ñu woon ñi ngi xaar yàlla ñeneen ñi nga xam ne dañuy woppoon nag ñëpp jóg ku ne di politique tey naan nañ fexe ba li nga xam ni mooy koom-koom réew mi ñu tegaat ko ci suñu loxo pour tong-tong ko kase donc je crois que enjeu yi dafa important problème mu Sénégal la du problème mu APR du problème mu Benno Bokk Yaakaar problème mu avenir du Sénégal ku nekk war jóg parce que réew mi politiciens yi moomuñu ko réew mi Sénégalais yépp ñoo ko bokk te li ñu intéressé mooy suñu avenir u njabootu ëllëgi du ñu nangu nag kenn kenn ku taylé suñu avenir u doom ni ñu avenir u Thiès nous ko opposition pendant 12 ans Nous avons eu ñu nous. la nga ça fait 12 ans nguur gu am ñu que nous day contre dafa doy parce que ci Thiès nous avons dëkk fi nañ juddoo fi nañ lu ñu am dañoo fas yéene bokk ak am nañ droit ku pour

yii passé ma jox la dix mille wala cinq mille ñu koy xam duñu ñu bëri parce que député kenn xamu leen musuñu bind pour défendre Thiès musuñu dem sax assemblée nationale. kon nag ma leen di ñaaxaat di leen ñaan bu la trente jotee ñu assurer suñu avenir réew assurer suñu avenir xale assurer suñu avenir u dëkk niñ koy defee nag mooy joxe une majorité absolue au président de la république. ba ñoom mboor mi nga xam ni moo fi nekk yaakaar ni politique naxante la kase loolu dafa xewi politique léegi problème de programme la ñun xoloowuñu xeexuñu xaxarantewuñu dañuy défendre suñu programme kon nag ki nga xam ne dafa nekk di naxante rek di nax waa Thiès yi nañ ci jàpp ba bu la 31 ñu voté massivement yóbbu ko à la mu may ñu jàmm ñu soqali ko suñu dëkk maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum